ci ki moy serigne xaadim borom tawfiq السلام عليكم نين دفاي الخمر ah ah ah moom <laughs> jamono la billaay jamono la jamono la lii kenn mus koo gis jamono billaahi boo ci nekkee maanaam ni mu dikkee rek noonu ngay àndee ak moom wallaay ndeysaan comme nag yàlla indi na ko si ñun ndeysaan ko ñaan mu dem rek mel bi gisoo ni waaw distance bi ndax lor yi ndeysaan lor yi mais nag woote na ni sa jëmm ji dama ko soxloon pour dajeeg yow jëmm kon alhamdulilah ndax mbir ma ngeen ma doon lo waaw yalla suñu borom def na soti na ah, keur ga jay nga ko ma sha allah allahu akbar jay na ko ci jay mu gaw motax ma tay mané ne bi dama la doon set ci ban daje ci jëmm ji kon alhamdullah na ngeen di deugal ga de jaru ko man dama doon ñew ci keur ga waaw ku ci nek li ci mom waaw ma jox lako ko mhm. waaye ku ne xamé ni jëmm keur ga yow ya fa jëmmal deug la te yow ci jëmm ji dama ko fonk motax tax ma yëkkati alal ji jox lako li tax tax ma la bañ ca fu mu lay waxtaane ma wax ca te lu baax rek lay wax ci yow dëgg la yow da xam maanaam nit mi toll ak nit ni muy mel ak ni nga war def nit daw yow lépp nga xam macha allah dëgg la kon sant naa la gërëm naa waaw comme alalu doona la alalu mbokk la nag waaw alalu bokk ma naan mbokk sax waaw kon jarul may ñëw kër ga di jox ku ne waaw ndax yow yaay kilifa gi wallaahi wallaahi yàlla def na ko de kon bu sottee damay jël lii rek xaalis bi teg ko sa loxo uh-huh. boo demee nga jox ku ci war a am nga jox nga jox ko wàllam ndax kër ga moom yàlla sunu borom def na moom taw feex na waaw. Hmm, def nga li la waat jërëjëf ma la ndax lii nga dawal ni lii mooy yëfi ngor kilifa yi li xamoon jaar ci kilifa dugg ci biir kër bu la neexoon ñëw séddale ku ne nga jox ko waaye lii nga def da ngaa woon nañu ñoom benn lanu te benn lan nag. te danga maa lii. billaahi doo ci am la naqari. walaay nga ma wóolu naa la ci. ku ci war a jot dina ci jot. incha allah waaw kontaan naa nag. waaye yow kontaan naa lool. kii nga. waaw baax na ah macha allah. waaw kon boo kii rek ñu kii. waaw waaw man de duma def damay def uti ma fi dara. ah fii utatu ma fi dara. nga ni moom kay na na naa defaat nii rek. ah ah tey dem rek demal rek. wóorul Mawla demal demal wuy ma ndigal la koñ bii dafa bari ay kii demal rek ah ndigal la kon jël sa mbooloo. mama lay doon. mama bu gees. wuy ma man lu tax man man man man lu tax la gën ne mooy da set. man du tubaab nga xam nga ne tubaab nga bi xam ne ñun dañ ni set si jaamu yàlla bokk ñun xoolal fañ pël ñun la civilisation que augmente le bonheur de l'homme rek nga tubaab bi xool ko xool ko raxas bi xoolal mi lekkale jéem kii gën a war a rek. bàtt moom ma nag mama ciw sama turandoo buy ma amoo benn problème nit ku baax la loolu ñëpp xam nañu waaye yenn saa nag nga def lu ci bokkul ah da maa fàtte fii ah tey nag mbéj ba fàtte woo ko di fàtte loolu waaye yow tamit lii boobu moom da ngaa déggoo ne dëgg loolu moo tax déet mais bi tam doon kii mënu nga sax jéem a duru sa mbéj mbéj lu mais da nga nga def ma dugg si biir ren maa jàpp ñoom lam mu saf sàpp

mën nañu koo waaw waaw waaw mais amoon na xuñ bu neex waaye xuñ bu xonk bu xonk bu amoon nii. da koy gis. kër gi tey lekk am dara desu fi même fooy parce que damaa wóorul dem fasaale naa ko mais gis nga fayal ba ñu salaatoo ba pare moom gént yu soxor laay gént gént yu borom <laughs> gént yu ma def démb man damaa tëdd rek ba li salaatoo noonu ba ma gént wàccu wàccu bu baree baree bare si gént gi. waaw loolu wóor yàqul koor gént googu foofu mu neex mais damaa yeewu gis fii ñaari pepp kepp ay pepp kepp maama. ba tey yàqu ko mën ngaa ma ma fay ma fay bor ñaari yoon. ma bëggul foofu kooku ceeb bi amul kay sama nit waa lay doonee. allo foofu ma dem kër kër kër kër gi xam nga ni dafa baax loolu baax foofu xam nga moom doxee dafa baax waa ngi sa caag bi 200 la ko def ma am benn caag rek doxam ko dafa waaye du baax yow ma 200. buñ jëmale jënd sax léegi yow li jënd ma benn omb man ma gis lës El Hadj Samba Awa Ndiaye man bu ma ko gisee fët fët mu nekk si omb mooy am dafa loolu. Eh, eh, eh, waaw waaye xaaral ma ñëw.

xaalis paa ay jàmm ay jàmm soxla ma ma yaa ma tonja paa yu ñaaw yi seen xaalis soxla ay jàmm non maa waxuma yow sax eh, man maa waxuma yow maa eh, waxuma eh, lu xew yow yow ta bàyyi sama xam Maodo xaaral yow xam mani sama njaboot gi da nga xam laa lay wax ni yow da nga soof man kii sama yaay leen ko tudde yow yëpp bi laa laal ma ah kon man tudde wu ko sama yaay man ma ni sama yaay lañ ko tudde ku ko laal laal ma. ma ni yow yaa ngi bëgg a ëppal nag de. toppal fële. Eh. Eh, eh, ma ni ni nga ma coronsé baaxul. dama laa bloqué ci solo yaa may gaañ. dama laa bloqué. yaa may gaañ. dama laa gaañ. dama lay rey de. waa tamit da nga am teyam. du ñu coronsé bi. kaw bay bëgg a waaw moytu sañ nga wax yow. waaw da ngaa ñàkk ñàkk yow yow yow yow yow yow kii ba nga laalati ko waaye maa ngi yow la. ni nga kii sama doom la. ah man du sama doom man. ma ni kii maa jur. ma jur ko moo dëppul fàtte ne maa ngi yow bokk ndey ak baay. loolu lépp yow xamoo ci dara nga ci xamul. kii sama dooma eh ñëwal nii ñëwal nii kii sama doom. mais sama dooma mais sama dooma mooy waxi lan. Modou maa ngi yow ñoo bokk ndey ak baay. loolu yow boo ko xamoon doo doxalee nii. eh ci biir. papa ni ci biir li ma ko bëgg a wax il faut nga dugg ci biir xam nga lu ma lay yëgal doom sa doomu geñoom yaa ngi dégg bu bëggee doom da koy wuti waaye sax yow mënoo ko sama doom yi yow la la. Modou yow fi fi eh, bayil wax ju ñaaw ji nga ak man. feccee ci la wax. moo de am dom yalla koy joxe. dom bëggee ñak dom yalla koy xagne mo dégg yow fa la tol ñak fay da bay bëgg man ki man kii foofu kanamam gi dafa ko ma la dara doomu di ko bay sama dom gi mo ay yalla ay yalla ah yalla sa jambi de yow la nga yakkar gis nga ni mu demee de.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 fekk fa ki nga xamne mom modi serigne khadim borom tawfiq sa bo ñewé ci mom mu daal di lay dimbali jokol ak mom 77 490 54 05 77 490 54 05 mbokk bu ko laajteeti ki moy serigne khadim borom tawféex